taxaw représenté élèves yi di wax ci kàddu élèves yépp ndax ñun ay élèves lañ jàng rek lañu am ku ñu jàppale tamit dañuy jàng ndax euh, dëkk bi dafa metti trop kon bu ñu amee ku jël ay fourniture scolaire lépp du ñu ko jàppalee tamit dañ koy gërëm donc te sant yàlla bu baax a baax ndax jàng lañ bëgg te jàng lañu am ay xale dong lañ amul lu dul jàng man nag am na loo xam ni jot nañ koo def ak man fii te dama koy wax ndax témoignage la ndax bu ñëpp taxawee ni moom dafay jàppale di def social am na ñu naan ñii du ko def mooy loolu man nag damay def sama seede bu baax a baax ndax man social bi ñuy def fii nii man xam naa ci dara ndax daaw fii samay mensualité école yëpp ñoo ko fay jël ma en charge ndax euh, ay problème dafa ñëwoon ñu dem ba dernière composition ñu dàq ñu ñun ñëpp suñu école fu nekk ci Thiès déposé naa fa sama edd muy loolu baaxul bi ma ñëwee fii nag ci lañ ma jàppale aidé bu baax a baax a baax may jàng ba sama BFEM bi mu ñëwee dama ko am ñu topp ma di ma suivre ba année bii nii moo ci mujj ñoom ñoo may jàppale ma leen di remercier bu baax a baax di remercier tonton Ablaye Dieye bu baax di ko ñaanal xéewal yi yokk li mu bëgg yàlla na ko ko yàlla defal ndax ñun ku ñuy jàppale rek lañu am amuñ kenn ndax fii nii ëllëg ay présidente président mën nañ fee génn lu nekk mën na fee génn kon bu ñu amee ku jàppale di ñuy may fourniture dañuy dañ koy gërëm bu baax a baax di gërëm tonto ci di gërëm ñépp yéen nag élèves yi ma leen di wax ngeen jàng bu baax a baax a baax jàng leen bu baax a baax ndax jàng dong mooy li gën te ñun ay xale dong lañ suñ jàngul ëllëg fii la ñuy nekk di taxawal ma leen di wax ngeen jàng bu baax a baax ja ñaanal tonto Ablaye Dieye xéewal yi yokk bu baax a baax yéen ñëpp seen xéewal yokk. vraiment di am ak contentement. parce que tey li ñu fi dajale eh, li ñu fi dajale dafa rëy parce que tey ay ndaw moo tax ñu jóg donc je pense que tey bu mu ñëwee fii fekk fii xale yi ñu toog loolu dañ si am contentement ndaxte mouvement Siggi jot na ko xam am si dynamique social la nekk. événement bu ñëw rek da siy indi napp appui donc tey euh, ñëpp xam ne actualité mooy euh, le début de la l'année scolaire donc. Euh, li ñu war mooy taxawu ndaw ñi ndax euh, ñu mën a jàng dans de très bonnes conditions te loolu aussi bu ñu koy def mooy rek euh, accompagner leen par des équipements des c'est-à-dire fournitures xamante ni chaque année dañ ko doon def mais tey aussi dañ ko renouveler encore pour mën a euh, taxawu xale yi ci seen éducation parce que comme li ñuy wax rek éducation dafa am solo ci réew donc ñun tey ñu nekk fii ñëpp nekk tey dara dañoo jaar ci stade bi nga xamante ni ñoom lañ jaar donc euh, am ñoo xamante ni dañoo nekkoon si ay famille euh, démunies famille yoo xamante ni demewul woon noonu donc daan am ay difficulté pour am sax benn cahier donc euh, peut-être sax man mën naa ci citer sama bopp donc daan nañ jàngi mais benn cahier rek la ñuy yor année scolaire bi yëpp mais teewul góorgóorlu nañ ñafe ba tey am lu ñuy am donc may ñaax xale yi ne na ngeen góor góorgóorlu jàng parce que jàng dafa am solo parce que yéen ku si nekk rek. yéen a ngi may xool comme référence ne bëgg nañ bu ñu màggee mel ni tonton Ablaye Dieye donc loolu bu ngeen koy def mooy da ngay am pas-pas ci li ngeen di def donc jàng bañ a foo parce que année scolaire yàggul. ça dure que neuf mois donc ñu ngi leen di ñaax ngeen jàng dimbali seeni i wayjur parce que tey seen wayjur yi. ñoo ngi sonn parce que koo koo si gis rek sa wayjur mu ngi kërti kërti di góorgóorlu di ñafe pour jëndal leen ay yëre ay dàll ak ay fournitures scolaires. man nag dama nekk ci dynamique pour di jàppale waajur yi parce que ci euh, loolu la ñuy yëngatu xool ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen gannaaw ñu dugg seen kër yi accompagner leen jox leen ay moyens yoo xamante ni bu année scolaire ñëwee euh, dinañ ci mën a jàpp. mais tey cérémonie ni bii ñu def dañ nekk euh, benn cérémonie bu am solo parce que comme ni ma ko waxee rek dañu nekk ci benn dynamique de politique de développement. pour développement nag bi ñuy def dañ ko def ngir intérêt donc maa ngi remercier ñi nga xamante ne tey ñëpp ñoo fi teew c'est-à-dire euh, samay naataango samay mbokk samay xarit de la mouvance présidentielle donc am na ñoo xam ne sax comme ni ko ci Yacine waxee tey suba moom lañ leen woo euh, ñu ñëw pour mën a fekkee lancement de la distribution des fournitures scolaires yi ñuy jax suñu xaree donc tey euh, maa ngi remercier ñi nga xamante ni ñoo rehaussé seen présence ñëw taxaw fekkee événement bi donc ñu leen di remercier ñëpp di leen wax ni daal Thiès benn la euh, nañuy booloo nekk benn di lancer aussi si benn message mooy que aujourd'hui l'heure n'est pas à la division l'heure n'est pas aux querelles partisanes donc dama koy wax donc tey ñoo bokk li ñu gëm ñoo bokk mouvance parce que benn dénominateur commun moom la ñu am mooy le président Macky Sall mooy Thiès donc ñaar yooyu kenn mënu koo xar ñaar parce que ñoo bokk ci mouvance présidentielle boo xamante ni dañ koy wax la coalition Benno Bokk Yaakaar donc tey ku gis fii toog nga xam ni coalition Benno Bokk Yaakaar mu ngi fi am amul kii fële la far kële parce que moi j'ai toujours appelé à la fédération et à l'unité donc tey euh, tous les leaders envoyé nañ fi seen i représentants pour que ñu mën a euh, fekkee événement bi nga xamante ni moom lay def parce que même les leaders si lii la ñuy dox donc euh, lii tey bu ma ko defee mel na ni dama ko defal toute la coalition benn Bokk Yaakaar toute la mouvance présidentielle yi nga xamante ni ñoo jog rek pour le développement de Thiès parce que ñun li tax ñuy jóg di yëngatu mooy l' intérêt général et l' intérêt général c' est accompagner la population thiessoise donc euh, moo tax vraiment maa ngi leen di remercier yéen ñëpp ñi nga xamante ni ñëw ngeen teew fii pour accompagner ma si activité bii mais aussi dama si am tey ay invités c' est à dire des partenaires ñi nga xamante ni ñoom laay ñoom laay liggéeyandoo parce que man sama gis mooy Euh, xëcc ay partenaires ñu ñëw Thiès pour investir parce que loo loo loolu mooy samay ambition parce lii tey vraiment c'est une surprise ñoom euh, démb rek moom moom laa leen ko wax ñu bàyyi seen yëpp ñëw donc vraiment nous avons des partenaires yoo xamante ni ñoom tey même les fournitures scolaires yii ma fi indi ñoom ñoo ko jënd participer ko pour que élèves yi mën si bénéficier wu donc je pense que tey kuy jàppale Thiès wala kuy jàppale le président de la république danga da nga war a dox euh, si la dynamique sociale donc accompagner le président de la république accompagner Thiès ndaxte ñu mën a am des lendemains meilleurs donc daal maa ngi leen di gën a ñaaxaat yéen ndaw ñi ngeen euh, góorgóorlu si seen année scolaire bi daaw defoon nañ ko lancé wu woon naa leen benn message ne na ngeen jàng bu baax te je pense que ni am na ñu bëri ñoo xamante ni am na ay résultat yu baax ñu ngi leen di gën a rek ñaaxaat. ngeen ànd ak yar parce que loolu dafa am solo donc bu ñuy wax éducation boo bëggee jàng foo nga am un bon comportement à l'école donc nañ leen na ngeen ànd ak yar di jàng pour que ëllëg ngeen mën tekki dara donc maa ngi remercier tout le staff du mouvement Siggi Jotna ñi nga xamante ni ñoo initié lii avec aussi la génération 2004 euh, de Bayal ñoom aussi euh, c'est eux les initiateurs de cette activité donc ñu ngi leen di remercier seen engagement et si seen ak seen détermination loolu donc daal di wax ni rek euh, tey kontaan nañ par rapport contexte bi nga xamante ni moo ñu fi réunir bu ñu fi jógee it di leen dem si benn euh, case des tout petits seeti leen ndax accompagner leen leen si seen i infrastructure pour que ñu mën a nekk dans de très bonnes conditions de travail donc di remercier ñëpp di si sant ñëpp d'abord euh, de remercier les initiateurs de ce, programme, euh, qui sont euh, les membres et sympathisants du mouvement Sigui Donna, qui ont euh, cette habitude de faire euh, la distribution des kits les élèves. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette année, c'est notre deuxième édition. Donc comme vous savez que le mouvement Sigui est dans une dynamique sociale. Donc nous sommes toujours dans la dynamique d'accompagner les populations les plus démunies. C'est pour cela, aujourd'hui, on exhorte à nos enfants, à nos frères et sœurs de bien travailler à l'école. Donc euh, on sait que les parents ne peuvent pas tout faire. Nous, en tant que politique, en tant qu'acteurs de développement, nous devons participer à accompagner les élèves, à les soutenir pour qu'ils aient, euh, pour qu'ils travaillent dans de très bonnes de condition Mais aussi, vous avez noté la présence euh, euh, des invités, c'est-à-dire euh, la coalition Beno Boko Yakar, qui sont ici, présents pour nous accompagner euh, dans cette activité si importante. Mais aussi, j'appelle euh, à, la, à la fédération que nous tous, nous travaillons pour un seul terminateur commun qui est Thiès, mais aussi accompagner le président de la République. Donc l'heure n'est pas de, aux querelles, l'heure n'est pas aux divisions. Donc il faut euh, travailler dans un cadre unitaire pour euh, nous permettre d'apporter des lendemains meilleurs à la population thiessoise. Mais, mais aussi, vous avez noté la présence de mes partenaires qui m'ont accompagné dans cette activité parce que c'est eux-mêmes qui ont financer les fournitures scolaires pour que nos élèves puissent euh, bénéficier euh, d'équipements, de fournitures euh, pour leur année scolaire. Donc j'appelle encore à nos élèves d'avoir un bon comportement à l'école, de se concentrer et de bien travailler pour leur intérêt et l'intérêt de leurs parents. Donc euh, nous avons aussi visité la case des tout petits de Ersa, où on a participé à la construction de cette case des tout, petits. Donc je pense que le mouvement Sigi sa préoccupation, c'est accompagner les couches les plus vulnérables pour aider le lendemain meilleur, mais aussi apporter euh, notre pierre à l'éducation d'un tiers euh, émergent pour le développement du Sénégal. maa ngi leen di remercier yéen ñëpp euh, di nuyu ñi nga xamante ni tey moom lañ ñu fekk fii euh, si case des tout petits euh, de Kër Xaadim ki ñu si dalal mooy seen directrice vraiment gis nañ teeru bi nga xamante ni teeru nañ ñu ko fii donc tey ñun bi ñu ñëwee gën nañ am. cofeel si li nga xamante ni moom lañ doon wax parce que ku ñëw fii xam ni kat ñii eh, ñu jar a jàppale leen ñoo xamante ni eh, ñooy jël seen i propre initiative eh, créer seen case tout pour que ndaw ñi. tout tànk yi am foo foo foo xamante ni foofu la leen ñuy formé donc ku gis rek euh, le mouvement Siggi Jotna xam ni moom si dynamique euh, social la nekk xool euh, couche yi nga gën a xamante ni ñoo nekk si ay jafe-jafe ñu indi fa suñu apport du ma ni mën nañ ñëpp lépp rek mais à chaque fois dañuy jéem a xool di nga xamante ni buñ ko bu ñu xalaatee indi ko pour jàppale ñi nga xamante ni seen loxo jo seen loxo seen gannaaw te lii dafa bokk ci développement parce que nga créer benn cadre boo xamante ne ay xale yu ndaw ñoom ñu nga si accueillir pour di leen former pour jàngal leen donc je pense que ni lii bépp Thiessois rek euh, war na si mën a euh, jàpp moo tax maa ngi woo waa Thiès yëpp. tous les responsables euh, politiques les acteurs de développement ñu xam ne am na fi tey benn centre bu tudd case des tout-petits di Kër Xaadim ils ont besoin de soutien ils ont besoin d'appui ah en tout cas man Ablaye Dieye jël naa sama engagement ni dinaa leen taxaw dinaa leen jàppale ba ëllëg ñu bokk si casier tout petit yi nga xamante ni eh, ñu ngi fii si cees mais aussi tey ma doon ñëw dama ànd ak samay xarit eh, samay collaborateur le président du mouvement cees sa kanam Pape Doumbouya moom it si loolu lay yëngatu donc it moom bu ñàkk dina si def dina si parce que bi ma ko xamee man si li may dox rek moom loolu lay dox mais aussi le président Thiès sa kanam monsieur Khadim Samb aussi ñëwul na accompagner ma si loolu mais aussi dama ànd ak ay samay partenaire bi nga xamante ni ñoo may jàppale si liggéey bi parce que ñoom lii lañ ñor rek mooy euh, def euh, dimbali li nit ñi sont des partenaire étrangers yi nga xamante ni fu jafe-jafe nekk rek dañ fay bëgg a ñëw indi ko donc je pense que tey li occasion la ñoom ñu ñëw gis ni s'enquérir si situation bi pour que ñu mën a am du courage pour ñu accompagner mais aussi tey it euh, def nañ euh, ay distribution euh, euh, de fournitures scolaires yi nga xamante ni chaque année rek dañ koy def pour les élèves yi nga xamante ni ñoo nekk ñoo nekk à l'école donc rek di gën a ñaax sunu élèves yi ñu gën a jàng ndaxte ñoom ñooy avenir ñoom ñoom ñooy avenir ëllëg donc ñun dañuy ñëw rek indi suñu doole li nga xamante ni mën nañ ko pour ñoom ñu mën a am ay moyen yoo xamante ni dañ si mën a jàng euh, tranquillement mais di wax rek ni euh, éducation dafa am solo donc euh, fépp foo xamante ni gis nañ fa ñuy former ay xale da askan bi war nañ leen mën a taxawu ndax euh, loolu mooy njëriñu réew mi loolu mooy njëriñu lépp mais aussi di wax ni aussi sunu ñi nga xamante ni ñooñu la ñu dénk euh, suñuy euh, gox goxaat suñuy collectif local dañu war a sensible par rapport à cette situation là donc nag waa tey yéen a war a mën a xam ñan ñoo leen yi taxaw ak ñan ñoo leen dul taxaw donc tey ñun tey lu ñu ñor rek mooy ñu defar Thiès avec des Thiessois qui sont crédibles ñi nga xamante ne li leen ñor mooy Thiès mën a jëm kanam mais aussi euh, du mu du ma terminer te remercier wu ma ñi nga xamante ni ñooy samay collaborateurs euh, jàpp si liggéey bi ba lii mën a am donc man fu ma mënul yegg rek ñoom bi dinañ fa yegg euh, xam la moo fa xew xam yan jafe-jafe ñoo fa nekk mën a ñëw indi si ay solutions donc maa ngi remercier ñëpp tous les membre de l'association de la case des tout petits de Kër Khadim qui nous ont vraiment permis de venir s'enquérir de la situation de, leur, de cette euh, case des tout petits. Donc je pense que euh, en tant que responsable politique, acteur de développement, euh, notre rôle est de participer au développement locale de Thiès. Donc quand on a eu l'information que euh, euh, la case des tout-petits, c'était que avait besoin d'aide, nous avons pris notre courage en main en tant qu'acteur social de venir les soutenir et les accompagner. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de lancer un appel à tous les responsables de Thiès pour qu'ils vous de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est apporter leur pierre à l'éducation de Thiès émergent. Donc, euh, euh, la case des tout petits de cité Khadim, c'est pour euh, des couches vulnérables, c'est-à-dire euh, les petits enfants. Donc, je, je, pense que nous tous, nous devons être sensibles par, par rapport à, à l'éducation, développer cette euh, structure euh, qui est porteur d'avenir parce que qui euh, accompagne euh, euh, l'enfant est en train de construire un pays pour l'avenir. Donc vraiment, nous vous encourageons de, cette belle initiative que, vous avez pour permettre à nos enfants d'avoir un endroit pour apprendre à basage âge et aussi euh, s'épanouir. Donc nous lançons aussi un appel à tout le quartier de vous accompagner, de de vous soutenir en, en, en, en, amenant leurs enfants et, et, étudier au niveau de votre de case des tout Et aussi, euh, je, je, je, dis que nous tous, euh, notre responsabilité est engagée, surtout les, élus locaux. Donc je pense que c'était de vous accompagner et de, euh, de construire euh, des, des communautés pour que des enfants puissent euh, de, euh, pour euh, avoir une bonne, euh, une bonne éducation.